Seex Muntaxa liggéeyub Sëñ Bamba la ñor Seex Muntaxa TV télé bi nga xam ne mooy télé artisan yi gisoo fii ñu teew ñu ngi ay mbokk yu ràññee ko ci li nga xam ne mooy yoon bi ay borom li ko waral mooy safar bi nga xam ne koy nekk te xoolee jamono soppeeku te nga xam ne moom la ñuy wàcc muy xarit yow ma sax ci saami ne asar te ximmatil muxtaari fii sori sama waaj bis boobu moo waral ñu daje bi ngir waxtaane ko ànd ko xam-xam yu ràññee ko ci sama wetu ndajoor yéen ci seen mbay mi moom xam-xam ni macha allah na ci Thiès ci taxawaayam ak ci bëgg bi xam ne bëgg na ko Serigne teg lépp ci sunu di ko xamal mbokk yi waaye sunu wetu càmm ñu ngi toog ak jàngoro xasaay ràññeeku di sëñ Modou Gueye xasaay ñu gën mu ngi toog ni sunu wet incha allah dajab moo tax moom la jox kàddu bi mu ubbi ci xasida yi bu defee soo wax ak sëñ mbay mu nuyoo incha allah sëñ

رجونا من المولى به خير مطلب ومسنا به في كل لدف وفي جلبي لقد سار كنسا خيانيسة الله ربي إذا ما تلون الآيات يفصنا بما تباركنا الأقدار هو السقوى البراء بي وإنا ذهب انتفاع جلبي سبرنا به ممن هدنا تلقيا بجاه لسي أمدا أو خد خد الدهبي alayhi salaatullah hijalla jalaaluhu bi asabi an ay li afdal laysbi alayhi salaamullah hima daama mustafa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 loolu tey ni nga koy jàngee neex na waaw ku ko déglu ku nekk da nga ci bëgg kon sëriñ Modou jërëjëf yàlla suñu doom guddal safan wéral baat bi bu defee ñu ngi siyaare bu baax ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides euh, di ko ñaanal suñu borom dañ ko fee yàggal tam ànd ak wér di ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Jëmm Fall mi fi bàyyi ko bu yàgg di ko ñaanal suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem waaye di siyaare bu baax xalif général bi nga xam ni moo doom di Modou Mbène Fall di ko ñaanal guddi fan ak wér di yàgg ci kanamu njaboot bi lool liggéey bi nga xam ni bëgg na ko liggéey maamoom suñu borom defal ko ci lu kawe njortoom bu ko defee rek fii ñu nekk tey mooy Touba Thiès nekk fii ci ndigalu Serigne Cheikh Souane ngir amale fi jotaay bi bu defee moom ñu koy siyaare bu baax moom mi nga xam ni mooy kilifa kër gi yàlla def ni mu uuf njaboot bi lool yaatal kër gi lool euh, lu fi waay bëgg lu jëm ci sëriñ bi boo ko waxee rek mu ah, lu jëm ci diine ak taalibe jëmul sax ngeen ci tàggoo am ngeen ñëw rek te defe ko ñu ngeen ko bëggee macha allah ñu yëgloo rek dañuy ñëw leen di saabu ñu ngeen def ko saa saabu ngeen noppee kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal bu baax euh, mbokk yi bu ñu ci yi nga xam ni moom lañu ñu def tam tey bëgg cee waxtaan mooy tukki bi nga xam ni sëriñ bi génnoon nga ko euh, sabab bi lan la waaw sabab bu tukki bi lan la ak li nga xam ne moo taxoon ñu wéyaale suñu borom te ñaan ko ngir mu teg ko napp yi napp yi it buñ ko ko tegee ak ñu ngi ci jànkuwanteel yëpp Serigne Mbaye la dina ci ñëw waaye Serigne Mbaye ginnaaw bi mu niroo euh, fi ñuy dugal ñun rek mooy lan moo sabab tukki bi Serigne Mbaye lan moo ko sabab la ñu woon ci ginnaaw bi mu niroo. di taayifatul muridiyya Cheikh Mouhamadou Mountakha hafizahullahu wa ra'aahu ko ñaanal sunu borom yàggal ko loolu te wéral ko ba naa li naanal maamam jël naa la ko lislaam sunu borom may ko mu mot li lépp te ko ñu ànd ko ak moom waaye itam ñu ngi nuyu mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir Thiès di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel ci weeru safar bi nga xam ne ci la ñu nekk suñu borom yeggal yi ci magal gi ak jàmm di ziare waa RTT TV mboolem ñi nga xam ne ñoo ci yëngu ñoom ñëpp ñu ciy jiital euh, sëriñ Xaadim Soumaré mi nga xam ne moo yor jotaay bi di ko doxal di ko ziare bu baax di ko ñaanal yàlla taxawaay bi nga xam ne am na ko ci Thiès am ko ci liggéeyu yoon yi suñu borom may ko ci ndam mu ànd kook mboolem waa RTT ñëpp mboolem techniciens yi caméraman yi di leen ziare bu baax baax euh, di eh, ziara bu baax baax nga xam ne moo toogal xalifa bi ci Thiès eh, ak mboolem taalibe Thiès yëpp leen di ziara bu baax di leen mbokkeel waaye itam indi ko ci waxtoom te mooy demul géej gi nga ne demul géej gi dafa lëkkaloo bu baax a baax ak eh, màggal bi demul géej gi nag sabab yi ñaar la dafa am sabab boo xam ne mooy sababu zahir bi waaye itam ko ca topp mooy sababu baatin bi sababu zahir bi mooy xam ngeen ni eh, eh, tubaab yi ñoo yilifoon réew mi ñoo yilifoon réew xaaj ko ay xaaj wet bu ci nekk ñu am koo xam ne moo leen fa toogaloon nekkal leen ñoom nag ñu amoon seen ngëm-ngëm ak seen i aada yoo xam ne dañ koo indiwoon fii ci réew yi ñi nga xam ne ñoo ci jaaroon ñu ànd ak ñoom ñi nga xam ne jaaruñu ca ñu safaanoo ak ñoom euh, Sëriñ Tuubaa nag ñi nga xam ne moom bi mu demee ba ràññee dafa daal di jël aw yoonam nekk jëmm joo xam ne suñu borom da ko defoon ni koo xam ne dafa gëmoon boppam si wàllu xeet bi mu doon muy wàllu gi mu doon gëm tam der bu ñu li mu doon waaye tam gëm aadam ak cosaan